affaire bi dem ñew dem ñew bi etu fi ci bop nit ñi ba fim ne ni fièvre bi sax nit ñi dañ ko gëmatul ben ci man dès départ gëmul nako mais fim ne ni ay première vague deuxième vague troisième vague nit ñi dañu dem dañu mar ci si si si mbir mi si mbir mi wa dañ ci mar ben jax euh, bop yi jaxasoo nañ parce que da ngay doon gëm ben affaire da ngay dem ba sax do ko gëm di nga dem ba nga ne est ce que li nekul ay politique wala nekul ay tout euh, dal lu nag mën comprendre dal man en ah, ah, simple man dama ne manam lima gëm dal moy nañ bay nit ñi ñu tranquille di ñu wañi wax ji ci côté coronavirus bi ba seen bop yi mëna ubéku ñu mëna xam ni ñi def su ko défé ñu dem ak suñu suñu suñu suñu ki suñu suñu xel mu dal dal wa suñu xel mu dal su ko défé ku ci gis lo gis lo xam sa yaram nga téla dem ke docteur non non non man mom ñakogum jëlaguma ko té paré guma koy wax deug yalla waaw ah, pare gu ma ko de pare gu ma ko de ndax man maanaam euh, liggéey bi ma nekk xëy na foofu lay waxee ndax lu laa xam maanaam man li may travailler ak ni may ñaqee ni may frappé si naaj bi man gëm naa ne coronavirus man moom waaw du ma nekk du ma ne amul parce que xaw ma ci lu bari lépp lu ma mun si moytu dinaa ko def mais man dama gëm ne daal man activité yi may def daal man euh, yàlla mën na def daal loolu moom. Takun ma ragal ko bay wara mo mën dem di ñàkk wala kii agaguma fu may ñàkkoo daal agaguma ci ak mo fofu dal ak lolu ah fever bi jeex na ah man lolu la gis parce que kene takkatul masque ta amna ño xamne xam mënu ño noy masque dafa metti man suma ko takke damay fat mais bank bu bo fay dugg fo nga tak masque tay gis nga corona bi dafa yaq yu bari waaw bu may dem bank tak masque bu ma debut bank jël sama masque denc Yalla bu mako xam waa ji nee ndax xamoo kuy dund corona ma ne ko yàlla bu ma ko xam yal nañ ci yàlla musal daal la ñuy ñaan barke sëñ Fallou mais yal nañ ci yàlla musal. non garaawul bàyyi wala ko nii rek xam nga corona bi xam nga Kaolack moom gars yi maanaam loo dañoo dëgër bopp waaw dañoo dëgër bu nit population bi dañoo dëgër bopp mais corona moom am na moom waaw ba léegi corona mi am troisième vague moom man gëm naa dina am parce que même France boobu moom sax. ba léegi France moom mu ngi ci xaw ma quatrième xaw ma nu mu demee noonu waaw kon nag Sénégal bi moom du ko mën a ñàkk am quoi waaw fu nekkee dañu koy dugg def mbooloo toog di waxtaan affaire yooyu xam nga te loolu moom corona da koo tare waaw loolu moom du yoon moom kooku moom en tant que bàyyi loolu moom corona du fi jógee moom troisième vague gëm nañ ko gëmuñu ko mais nañ def liñ santaane ni foog ñu jéem ko mais ñoom itam autorité yu nekk Sénégal fii Kaolack fii nañ xam ne carrément ñoom i tamit mbooloo mi ñu dajale ay xale la ñuy dajale te ay xale wax dëgg yàlla ku leen di dajale war na am ci yoon boo leen teg moo nekk dee leen takk masque gëw ma loolu gëw ma la troisième vague mën na am dama bi man gëmatuma ko parce que tappale yi daf ci bari dañoo dañoo bëgg xam ñun exact ñun fan la dëgg féetee tamit quoi parce que port du max port max parce que suñu njiit buñ gisul ñoom ñu benn réaction mi nga xam ne troisième vague mu ngi ñëw defuñ benn réaction kon ñun war nañ laajaat suñu bopp bu ñoo gisee population fi mu kenn takkatul masque pour ñoom pour ñoom Covid bi jeex na loolu bu en réalité loolu la néew na fii koy tàkk masque à Kaolack